الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله سن بوك امام عبد العزيز نجاي bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del jeudi 7 octobre 2021 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu audio numéro 250 ci sunu jotaay bi passé ñu ngi woon ci aaya numéro 69 bu sóoratul ahzab ñu jàngatoon ci ne kàddu yu ñaaw du cëru jullit yonente bi jàngal ñu ne ñun julit suñ wax na rafet suñ ko mënul nañu noppi ñu fas yéene jàll ci yaa ayo lasina amanu bi ci topp mooy aaya 70 bu suratul ahzab allah subhanahu wa taala di ci wax julit yi nañ ko ragal te suñuy wax nañu wax wax ju jub wax ju jub mbokk yi mooy wax ju dëggu te rafet kon daanaka aaya bii dafay ñëw di dooleel sunu waxtaan bi nga xam ne moo jàll su ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a dem ci yaa ayyuhal lazina amanu bi ci topp muy aaya set bu suratu muhammad suratu muhammad mooy surat 47 ci aaya numéro 7 suratu muhammad borom allah subhanahu wa mu ngi wax yaa ayuha amanu إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم borom bi mu ne jullit yi su ngeen jëfee ba yàlla am ndam yàlla dina leen defal ndam yéen itam dëgëral seen taxawaay aaya bii mu ngi wàcc Médine ci jamono boo xam ne lislaam amuloon lool doole jamono boo xam ne lislaam amaguloon doole ci jamono boo xam ne yéefaru makk yi ñu ngi taxaw temm pour faagaagal lislaam mu mel ni borom bi allah subhanahu wa dafay dafay encourage jullit yi di leen di yokk fit ak cawarte mbokk yi dëgg la ne xare diggante jullit ak yéeféer ak ay ngànnaay ay épée ay jaasi ay xeej dëgg la amatul wante kàddu borom bi yitteel na jullit yi ba léegi kàddu yi borom bi yëkkati ci aaya bi yitteel na jullit yi ba léegi donte toolu xare amatut suñu xare ñu dégg ci xare ak ngànnaay ndaxte jamono bu ne jullit bi mun na def loo xam ne ndamu borom bi la ndaxte lépp luy dooleel lislaam rek ndamu borom bi la te wareef la nag pour jullit bi muy def saa su nekk loo xam ne dafay dooleel lislaam moo xam dafay jàngale su nekk ne ustaas la walla imaam moo xam jullit bi dafay def ay rappel di fàttali moo xam dafay def daawa maanaam di woote ci yoonu lislaam dem na sax ba ci comportement bu rafet ba ku la gis te fekk du jullit dina la sopp ba dina am Ce dina xemem nekk julit ndax rek sa jikko ju rafet ndax rek sa comportement bu rafet li mbokk yi day dugg day dugg comportement bu baax jikko ju comportement bu comportement bu nit la gis lu jëm ci mbirum rappel nag du jëm ci mbirum fàttali bu ci kenn xeeb boppam bu ci kenn xeeb boppam yonent bi salallaahu alayhi wa sallam nee na su nekkee ne benn aaya dong sax nga xam na ko jottali mbokk yi tool baa ngoog ku nekk mën na waaram tool bàngoo ku nekk mën na béy waaram li nga xam ne moom la ñuy jeexalee te mu nekk toujours ci loo xam ne dugg na ci liy doole lislaam mooy mbokk yi fu ñu uññee ormal ormal lislaam nga taxaw xeex ko fu ñu uññee ormay lislaam nga taxaw xeex loolu le yaa xam ak sa loxo la su nekkee ne jar na ko yaa xam ndax ak say kàddu la ay kàddu nakk yu wone pas-pas bu dëggu fu ñu uññee ormay lislaam jullit bi dafa war taxaw fu ñu ñàkkee teggin yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam jullit bi dafa war a taxaw waref la bokk na ci luy dooleel lislaam jullit yi suñu nasaxee rek noonu lislaam yi lu leen neex wax lislaam lu leen neex wax yonent bi su yàggee lislaam nasax kon doole lislaam mu ngi nekk ci ban taxawaay la jullit yi am doole lislaam li koy def mooy taxawaay bu dëggu taxawaay bu ànd ak détermination mbokk yi yàlla nañ yàlla def ci ñun cawarte bañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy xeexal lislaam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم